complimenti dis-moi ndax yaay sama life tey jii ngi doon naa ndax xëy nga gàddaay kay ma sukkal la ma tuubal la lu mënti doon ma jéem ko bye bye bye bye waaw en route vers le 24 yéen euh, internet yi seetaan euh, Dakaractu euh, tey nag ñu ngi ak El Hadj Keita biir Médina c'est le Neymar mi ngi waajal événement bu mag di le 24 décembre foofu ca Grand Théâtre alors tey ñu ñëw koñam mu am ku mu seet si koo xam ne kenn la ci moom mu ñëw seet si ko pour jagleel ko bis bi waaw mais Neymar fu ñu nekk ni fan la. mais Favi bi fii mooy rue 19 maa ngi nuyu waa Dakaractu yëpp seen teewaay fii ah, tey moom yow laa bëgg a àndal pour ñu dem xool yi. autorités yi ñu jëndal ñu sunu billet yëpp waaw foofa tag mais fu ñuy déglu ni kër Pathé Ba nañ dem xooli ko vite fait génnaat. let's go allons-y nañ dem. Favier ngi nii moo waaw bu moom la macha allah moom yàgg maa jàppale ci lépp fi ma dugg nag sama koñ la sama kër la ndax yàgg nañu xam El Hadj ci waar di 19 depuis samay début dañ ma yàgg jàppale euh, moom Pathé Ndoye Ba yàlla def muy sama lépp ndax euh, lépp lu may def da ciy dugal loxom euh, lépp lu ma xewle da ciy dugal loxom ba sport télé yu bari sport télé book bu ma def moom la waaye sport télé yi ma yi ma def yëpp yëpp ku ku gërëmul doo gërëm nit noonu la demee moom moo ma jàppale moo ma moo tax bés bi dama jël jagleel ko ko waaw parce que nit da ngay am kóllëre bul fàtte say nit yu démb ñi daan defal ñi daan sonn ci yow say début boobu am kenn xamagul la ba ba ba kenn xamagul ma ñoom ñoo ma njëkk jàppale moom Pathé Ndoye Ba waaw ah, moo tax tey ma ñëw seet si ko wax ko ne billet yi génn na fi mu ne nii billet dafa takk noo da si billet dafa tàkk parce que parce que xam nga xam nga xam nga euh, docteur boo ko waxul sa sa sa fi lay metti sa jàngoro du doo mës a faju du ma la nëbba maanaam euh, coow li bari na wax ji bari na mais billet yi demagul waaw ñu war a jënd billet yi jëndaguñu billet yi mais sant yàlla samay quelque nit ñoo ñëw jënd billet mais moo tax ñu ñëw seet si la pour nga jàpp ci bu yey bu baax pour Médina ñëw ñëpp jàppalem seen doom loolu moo fi indi. ayca ba tey mbokk internet yi ñu ngi ak ki nga xam ne mooy euh, Pathé Ndoye euh, Ndoye Mali Marème Ndoye fukki penc ak ñaar borom Médina El Hadj Keita jagleel ko li nga xam ne mooy guddi gi le 24 décembre alors ñu ngi lay bàyyi nga nuyoog internet yi euh, di la wax ni noo gisee le 24 décembre ak ban yëg-yëg nga am sa digganteeg El Hadj Keita ci guddi gi mu bon ñu ngi leen di remercier d' abord ci visite bi ngeen def euh, bett ñu quoi parce que man vraiment bett na ma ah maa ngi doon sax mais ni ngeen ñëwee nii moom bett na bett boo xam ne mais plaisir la aussi parce que El Hadj dafa nekk euh, suñu rakk ah euh, comme ni mu ko waxee depuis ses débuts donc c'était pas évident ñu ànd ak moom ci liggéey bi muy def mu muy def lo aussi nit ñi dañ sentir ah, sentir et puis def lo nii euh, nit showbiz def plus de 15 ans deful def te pour lu ah, parce que fessel na fi ay yo xamné ni ay magam ak ay nijaay mënuñu ko te ba fi may wax parce que ku xam musique nit ñi dañuy génne ay CD di def ay ay ay single mais tëggatuñu ci boîte bi pourquoi parce que nit ñi ñëwatuñu moom nag am na ci loo xam ne ni tey bu tëggee nee naa la euh, day fees del macha allah moo tax euh, événement bi ñu jëm di le 24 décembre ñun amuñu ci xel ñaar foofu dina fees ba boo maytuwul sax ni nga yor sa billet te doo dugg lu leer laa la wax parce que lu mu liggéey du xëyul suba rek def ko. daf ko liggéey à la base ñu ñëpp ñu ànd ak moom topp ci donc moo tax fi mu nekk nii dañuy euh, nekk ci dernier réglage yi rek n'est-ce pas pour que le 24 mu def fa loo xam ne nii euh, vraiment dina nekk ci archive musicale fii au Sénégal. waaw ah, moom moom yàlla daf daf ñu boole yàgg na démb parce que suñuy ñoom suñuy ndijaay lañ. fekkee nañ sunu sunu sunu jeunesse ñoom fekkee nañ sunu jeunesse moo tax euh, ba léegi ñun ay ndaw lañ ci seen seen seen seen kanam moo tax ñoom dañu ñaan rek yàlla bàyyi leen ba ci kanam ba seen yéene si ñun euh, yàlla matali ko parce que ñoom dañoo yéene dañoo yëg Pape Ndoye Ba daf maa yàgg yéene ak ñi nekk fii yëpp euh, dañoo yàgg yéene Badara Ndiaye waxi noppi ñoom ñëpp dañ maa yàgg yéene pour ma réussir incha allah du ma leen rusloo du ma leen décevoir incha allah. Bakara Daraman aram loo maam Kumba Caam buguma penda baati penda xar yàlla la bopp coor Sëriñ Babakar ne woon na suma rusul woon sama baay kuma woo ci foto ma wuyu la Bay Si naw naa la sang bi yaa nu yanu gën maam ko bokkutang maam yaa gën maam eh ma nga jaaxaan borom bone kaare bi taalibe Serigne Babacar tey ma wey ko baatindooy ba Mbay Kamara Sega Basu Shiri Binta Laare Bayu Ablay Bayu Sega Aminata Paate way wi jombula ma way ñu ne Paate kan mooy yaayam man ma ne yaama yaama amul noflaay amu fi morom tundu wi ràññee doomi yaa ma yaa ma tey jii ngi doon naa ndax yi nga gàddaay kay ma sukkal la ma tuubal la nu mënti doon cee dames a ngi nii cee bëgg a dames cee sama mag yaay booy na man li may wax El Hadj bu Damels dafa woo waa Damels yëpp Damels yëpp nañu génn nekk ci ginnaaw El Hadj ndax El Hadj lu mu bëgg ci Damels daf ko war a am kon ñun waruñu toog di xaar kon nag El Hadj ci kaw ca kanam ak di Cheikhul man maa la wax loolu billaahi wallaahi man la daan wax saa su nekk loolu laa lay wax ba léegi fi nga jàpp jàpp barke Cheikh Ibrahima Fall bi nga xam ne moom laa yaakaar ñu yaakaar ci kanam Youssou Ndour mom la waxon xalé medine jom la nuy wayee mune yow medine suma lay way di la way ba mu yak xel bi dem ci sedd baas kamara tey ma di la da nan nga ñaar yoon kooku sunu papa mom la way ci medina muy sunu papa Sega Bass Camara mi ngi ni wa suma papa suma xarit yàgg ñaanal bëgg El Hadj Keita di ma tiitoroo di ma safoo bàyyi siixi kontaan na incha allah incha yëpp dina baax. kontaan na yàlla taxaw. amiin bi ñëpp taxaw si. amiin amiin incha rabbi. yàlla ndam rek nga ciy am. incha allah yow la ñu ngi jàppee parti na la yàlla jàppee ñëpp ak Medina. incha allah yal na la yàlla taxaw. waa sunu papa Amadou Mbaye sunu transitaire bu ñaawul bi macha allah bëgg El Hadj Keita lu ñu xewle mu mu mu mu mu dugal ci loxoom.

continuité pour le succès changé loo conduite bi nga amee fi mu nekk nii téye continuer ci noonu boo ko amee bu soobee yàlla fi ñu dégg say nawle di nga leen fa dégg bu soobee yàlla te di nga am loo xam ne sax doo ko woon ko woon xalaat merci encore une fois. ana paa bi bi Badara Dia looy wax yow. sant yàlla rek quoi doli dolli Yalla li mom bettu ñu ci yow bettu tout début bi yëpp. adduna moom nii rek la quoi ñu di la ñaanal rek li ngay jëm yàlla mayal si ndam bu rëy rëy bu kii bu kawe sa njort te xam naa ne yàlla dina ko def parce que xale bu am yar nga xale bu fa xam démb xale bu xam nga démb nga démb nga man daal laaj li ma lay ñaanal mooy nañoo bàyyi bés boobu rek dinañu xam ni ñi fa mës jaar ñëpp dinañu xam dinañ ko dinañ wax dinañ ko waxaat quoi day bokk ci analyse ñi jaar foofu dina ci bokk ci yi yàlla baax na قيامة عمالة انقلب بالمال خلني الله كنت نسمرو قرعة Tu sais que tu me rends dingue, dingue, ça les gagne, chắc mình cứ đi thì đang đang yéen loo leen di lox ni loo leen di lox bébé Ngoo lan ngay waajee li xew lan moo xew bébé Ngoo Médina dafa am événement bu xew événement boobu moom la ñëpp di xaar le 24 rek ëpp na l'histoire retiendra. ay wa bibi ngo nokay waje <laughs> yi ak dole ni ngi ñew ak dole nañ def. sa jumel wa upp na ñing koy wajeul bu baaxa baaxa baaxa baax kay. ah ma wëlbatiku ni gis cialle ah betir ma jigen mbor aale ma jigen mbor leuk daru sa mam cialle noy waje bes bi mbokum yaay Bébé Ngoné. waaw tubaab fakal sha allah El Hadj Keita mo xewle le 24 décembre. fofu ci Grand Théâtre waa Medina ñun ñep wara mbolo japo jubali grand théâtre yëngal ko ba mu yëngu ndax doomu maintenant moo xewle kon nañ ko yëngal ba mu neex waaw kon neex na. kon kon vaay. kon vaay vaay ngeen def seen noir yu baax yi. xoola xale yi xoola xale yi eh, eh, eh, wane leen seen sañse wane leen seen sañse wane leen seen sañse di tëraw waaw comme sànq ba ma ñëwee si gars yi gars yi ngi nii mafia bi nga xam ne macha allah ñoom kii mooy ngaañ mooy président bi gars yi ñi ñooy waa 100 pour 100 Médina ah, lépp lu ñu xew lépp lu ñu xewle rek lépp lu ñu xewle rek ñoom ñooy def cortège bi ak contingent beeg ñëpp woo génne seen scooter def ci essence parents saa yi duñu leen sax jox essence ñoom ñooy fayal seen bopp essence ñëw nañu élage dañuy jàpp si bés bi yow nooy waajee bi le 24 décembre. ah essence moom le 24 moom lépp pare na moom. ñu ngi bàyyi ba jour ba jour boobu moom nga xam ne waa Médina ñoo ee eh, ñu tamit ñu ngi woo ñëpp bàyyi ñu kenn képp koo xam ne mooy jeune Médina woo naa ñëpp képp ñëpp ñoo xam ne doo ko dóoru muy ri 19 waa Fass Fass Colobane ñëpp nañu ñëw bu jour daal ñu jàpp si daal loolu daal laa am lu mu si wax. kon kontaan naa ngañ. mercredi nag mooy caravane bi mercredi loo sa loo war a def. non mercredi moom xool ñoo lay fekk ba sa kër génne la wëraax yow ba heure bu la neex. Euh, euh, ñu kii nag pause le 24 nag lépp a génnaat. kontaan nañ kon sa baaraam ma ñëw. inshallah nit na ñëpp xam nañ baaxam waaw moo tax ñun tamit duñu def bëss bu mag té te wuñu ko ci mom ci parrain yi la bok ndax yàgg na jappalé jeune Médina medina lepp luñu mësa am dañ koy wo mu japp ci moo tax tey ñu bàyyi lepp dag yitte yëpp and ak yow fa vivé ak waa Dakar ak tu ñew seet si ko ayca tey ñu ngi euh, seet si suñu euh, président grand Abdou euh, fii ci këram moom bokk ci parrain yi nga xam ne mooy le 24 comme ni leen ko waxee en route vers le 24 décembre El Hadj Keita fépp mu mën a dugg di seet ay nitam dinañ ànd ak moom alors tey nag ñu ñëw seet suñu grand suñu xarit muy Abdou borom Medina. parce que ñun moom Médina lañ dëkk ñi ñëpp sama ay frère lañu sama ay rakk lañu Elhadj nekk suñu ay rakk bés bi moom suñu bés la dañ ciy jàpp dañ ciy jàpp le vingt quatre ans le vingt dinañ ci jàpp dinañ ci def si lu ñu mën ñëpp te Médina yëpp laaleen leen di woo ñu ñëpp ñëw si bés bi kenn duñ fa njëkk dinañ fa ñëw teewe ko comme Médina ñëpp Médina damay woowaa Médina yëpp ñu teewe bés bi jàpp ko comme seen bés. di def ko ñëpp ni def ci suñuy rakk la suñu jarbaat la nañ ciy jàpp sa kaw sa kanam rek. vaay vaay vaay vaay vaay vaay vaay lu tax nga fay sa téléphone dem naa sa kër bay nekko fa laaj naa la kii faale wu dem naa fu ni gisuma la Txisik tximura deng deng Sama ligi maneng geng Yetak di dang dang Oh Mogi se ki me set imam ne koai bugi sul kamu minwet Abdu muy sabai wawa Xam ngeen lan la kenn duñu sa morom kon atam na leen ñu dem Vai vai vai vai na na ringa gadai vai, vai. la matu bela no menti dor Manjim ko bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye na face telefon Dem na sekir bay ne kofa Lanya lagi fale wuma Dem na funi gisumla Tu sais que tu me rends dingue Some the game and ling, yeah, come and good eat it. Euh, Dakar Actu lii moo nekkoon tey en route vers le Grand Théâtre bi fi ba bés ba fi ba le 24 décembre di ngeen am El Hadj Keita fu mu munti dugg ñu and ak mom daal di leen di wan ñu mu fas andal ci guddi gi alors li mooy nekkoon li nga xam moy tay suñu yoon. Ah, yoon bi laa ko mën a tuddee parce que en route vers le 24 euh, décembre la donc dara du leen ump resté escorté ci euh, Dakar Actu dara du leen ump mais Neymar. waaw kon ñu def tàggatoo ba suba rek. waaw ba suba yow awal nii rek ma amoon na le. waaw ayca ñu daw. <laughs> hey xaaral ma xooli vaar